une situation un imbroglio judiciaire. waaw ouais. imbroglio judiciaire mooy euh, beaucoup de détention. Mm surtout de détention. Mm de de de de de de de, politique. nga fekk fii le dossier Ousmane Sonko. Mm -hmm. nga fekk fi dissolution PASTEF confirmée par la Cour de justice de la CEDEAO. Mm-hmm. nga fekk fi. Euh, toutes ces tout, toutes ces personnes qui sont dans les prisons ñu accuser leen d'être euh, mm-hmm. de dañoo laal ci ay événements yu am fii ces ces ces ces trois dernières années boo ñëwee mbir la boo xam ne di nga ci am nga ci gis-gis mm-hmm. lan moo ci sa gis-gis bon sur le cas ci li xew fi mu nekk nii par exemple ñu dem ci prison yi ndax politique bi d'abord sur le cas Ousmane Sonko li ma ci waxoon ba pass laa ci waxaat si interview mujj bi ma wax. c'est-à-dire. mooy bi juge bi wax ne dañ ko waroon a jox parrainage am dañ ko waroon a jox mu dem uti parrainage comme ñëpp beneen cas bi mooy Ousmane Sonko man xaw ma ko mosuma ko gis. mais mais mais dafa am nu muy doxee. waaw xam nga waxee. waaw agent judiciaire de def na recours. waaw waaw mais maa ngi ñëw. Hmm. juge dafa am nu muy doxee mais réew mi aussi dafa am nu muy doxee. Hmm. réew mi ñun ñëpp fi leen dëkk Karim Wade ak Khalifa Sall juge am na ni ñu defoon ak ñoom fu mujj dañoo waxtaan suñu biir na utal solution boo xam ne dafa arrangé ñëpp ci réew mi dëgg la wala dëgg. mais avant ça ils ont ils ont purgé le. je suis d'accord. les les les rigueurs et de la loi. je suis je dama wax rek li fi xam. Mm-hmm. donc Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ne dafa am lu mu représenté ci biir réew mi fii. ça veut pas dire que loi bi ko wàcc na nangam nangam man loolu yegg seegu ma ci dafa représenter hope espoir pour beaucoup de jeunes dans ce pays mu liggéey liggéey boo xam ne ci biir réew mi aussi ñëpp teg nañ ci seen bët ci jeunesse bi yee fi jeunes yu bëri nag ci liggéey ba ak ni ñuy defee politique te man loolu dama ko rafetlu suñu réew mi dafa toll ci construction comme dafa toll ci construction dañoo soxla doomu réew mi yëpp surtout doomu réew mi nga xam ne nañ leen ci liggéey bi man en tant que con ñaar loolu li may ñaan man su fekkoon maay président tey doomu réew moom nga xam ne la leen soxla man dama leen soxla ci kaw table bi ñu ñu liggéey réew mi donc question am loo xamte te la nguur gi man su ma doon ñoom tey danaa trouver équation ba nga xam ni inclusion dana mën a am ci élection yi ñëpp mën cee bokk. maanaam yow boo boo amoon. boo amoon pouvoir bi tey. da ngay libérer Ousmane Sonko. waaw dama koy libérer mu bokk ci élection yi xam nga lu tax. parce que dafa nekk espoir bu rëy ci réew mi la jeunesse a besoin d'espoir dafa am lu mu yee si ñoom. koy libérer en tant que exécutif kon yow koy yaa ngi def li ngay reproché gars yi. def ma lu may reproché yi parce que loolu moo fi nekk système bi di. <laughs> incursion dans le. non non dans les décisions judiciaires. non non non def ma loolu. nan ngay libérer koo xam ne euh, dafa nekk euh, dossier dafa nekk. en non man waxuma ne ñoom fi mu ne nii système bi ñu toll nii. Hmm. nguur gi am nañ pouvoir boobu. waaw parce que yi fi fi xew yëpp xam nañ quoi ah. am na fi ay. Euh, Rebeuss am na fi ay accord de Rebeuss je sais pas comment ils l'ont appelé mais mais yow loolu nga dénoncé. mais waxuma man waxuma ne su ma nekkee président dama ne la ñoom instant yi am nañ possibilité def loolu. waaw mais ñoom defuñu ko yow. man su ma nekkee président qu'est-ce que je vais faire. Hmm. danaa fexe on recommence à zéro. Sénégalais yi ñu a jox chance yëpp ñu jox leen chance fekkee du léegi nga may wax bu ma nekkee président man. Ah. waaw. man mu la nan nga koy lijjante yan décision ngay jël. ni ñu koy lijjantee leer na. yaa yow yaa waxal sa bopp ne la Sénégal yu bëri dañ leen dugal ci biir kaso bi te li ñu leen loolu dañ koy dindiwaat ñu tegaat lépp ci table bi ñu waxtaanaat ñi nga xam ne dañoo war a jox chance ñu liggéey ñu jox leen ñu liggéey ñu bokk ci liy tabax réew mi mais doo leen bàyyi ci biir kaso bi boo xam te ne politique moo ko moo ko lëmbaloon su fekkee politique moo taxoon ñu tëj la man dama lay libéré parce que bëggatuma man ñu nekk lépp politique politicienne. dama bëgg Sénégalais ñu liggéey pour le cas de Ousmane nga koy. mais moom laa la juste expliquer su fekkee politique moo ko laal dañ xool ba justice bi ci def mais man ëllëg su ma nekkee président yàlla bu mu fi nekk ci kaso boobu ba léegi j' espère que balaa boobu nañ ko bàyyi mu ñëw exercer ay droit mën a bokk ci langue politique man du ma doon sañoon mooy su ma nekkoon fii tey en tant que candidat su ma fi fekkoon candidat dama fa waroon a fekk ay ñoom Ousmane Sonko. ay ñoom Karim ñu mën a débattre man ñooñu laa fi bëggoon a fekk tey ngaa sant yàlla Ousmane Sonko nekk Ousmane Sonko bu fi nekkee doo leen doo leen existé de. waaw mais nañ ko bàyyi ñu xool <laughs> mais loolu day baax ci réew mi. Ousmane Sonko bu ñëwee kenn du laal ci. waaw mais ayca léegi kon yow plaidel pour ñu mu génn ñu mën a ñu mën a débattre. ah au moins ñu jël ki gën si ñun. Hmm. man loolu laa fi bëggoon a fekk. mais nañ bàyyi ñu ngi ko tëgg làmb ji ñëp ñëw man so veux les meilleurs du Sénégal ñu débattre. ñu génneel idée yu gën ci réew mi ñu jël ki gën suñu ñu fa ñu. donc ça veut dire que da nga jàpp ne Ousmane Sonko li ñu ko téye lépp. Mhm. yi dëgg yi justice lalu ko. donc man du ma juriste nag liiruma dakat bi xaw ma dakat bi luñ ko ci ñu ci bind ak luñ ci nangam mais képp kuy Sénégalais nag xam nga ne nag dossier Ousmane Sonko bi moom wax dëgg yàlla politique am na si yow loolu yow leer na la yow mi la koy laaj. yow leer na la Ousmane Sonko bu nangoon a négocier comme ñeneen ni ñu ko defee. tey du dem ci biir kaso bi fii loolu moom ku dofut xam nga ko te man yàlla rek moo tax may wax